waaw asalaamaaleykum mbokk yi uh, man tey ji uh, dama ñëw fii ci tribunal bu Dakar uh, ñëw taxawu suñuy mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen di jaay doole ca Sébikotane te ki leen koy jaay du kenn ku dul nguurug Sénégal ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité yi mu teg ci département bu Rufisque nga xam ni ko ko jiitee mooy le préfet ñu ànd également ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore projet TER bi euh, ñuy jaay doole euh, ay sénégalais yoo xam ni dañoo góor góorlu ba tabax seen i kër ci loo xam ne mosuñu woon a xam ne bés dana ñëw ñu leen di jaay doole ñu dem ba dëkk ak seen i famille ci biir Sébikotane nguurug Sénégal am projet boo am mi ngi tudd TER ni képp ku nekk ci axe bi mu ko bëgg a def ba ay AIBD dina la jox ndàmpaay yi nga xam mu nga mérité mu commencé première phase bi ba yegg si Bargny amul benn coow naam lam diggee woon am na lu mu ci deful mais lu ca ëpp au moins defal na ko nit ñi parce que jox na leen suuf si mu nangoo ci ñoom lam warloo ak ñoom tabax bañ fa tabax tamit ku ci nekk la nga fa tabax wala la nga fa def ci peen jox na la ko ba loolu au moins féete woon na boor xëy na la ñuy ñaxtu rek mooy fan leen waroon a yóbbu te yóbbooguñ leen fa mais bi ñu rombee Bargny nag jëm jam ñaajo ak Sébikotane foofu lañ commencé jaay doole di jaay doole ay yoo xam dañoo góorgóorlu ba tabax seen kër. ñun ku ci nek da nga takalé parce que Sénégal réew mu metti la ñun tok tay ni leen par force dañuy tok seen kër té duñ leen jox benn ndàmpaay bu mengo ak pen bi ngeen fi def nga xamni ci première phase bi dafa amone benn protocole buñ defoon ak ñi xam lañ tok seen kër mu am ay critères yu leer yo xam ci lañ doon sukkandiku pour mëna euh ku ci nek ñu jox la sa ndàmpaay bi nga mom lañ ak yow ñi nak ñu gis ne xaaliss ba pasar passeré nañ ko ci première phase bi bi ñu duggee ci deuxième phase bi kon ñu ne léegi jaay doole fi des parce que alal jan prévoir woon pour dem ba AIBD lépp pasar pasaree nañ ko léegi nag ñu ne dañuy taj kër jàmbur yi ku ci defoon ci sa kër lu mat ñaar fukki junni ak terrain baag lépp la nga ko jënd woon ñu ne léegi xaaj ba sax duñ la ko jox wala xaaj ba lan lay jox muy jaay doole gu leer naan leen da ngeen di signé par force te bu ngeen signé wu daañ seen i kër kon képp kuy sénégalais na nga yëg ne ñu ngi jaay doole waa Sébikotane te ñii nga xam ñu ngi leen di jaay kenn ëpp leen ay droit ci réew mi président Macky Sall nag faruñu ko woon pour muy nekk ci réew mi di jaay doole ay moroomu sénégalais parce que doon ko faloon pour mu yiir sénégalais yërëm leen ñii kenn kenn kenn dimbalewul leen woon bi ñuy tabax seen i kër te terre bi mënoon nañ koo jaarale ci weneen yoon woo xam du dugg biir Sébikotane mais bëgg ñoo xam ne boroomi alal lañ yoo xam bu ñu jaaroon ca i espace daan leen jox ndàmpaay yu diis ñu bëgg a fekk ay baadoole yoo xam dañoo liggéey seen i kër ci ay taqale ñu bëgg a toj seen jaay leen doole kooku nag ko nangoo procureur nag ne ko na bàyyi doomu jàmbur yi parce que nga jël euh, euh, ay ay kilifa yo xamni ño nekkon di yor seen njaboot yo xam dañu wara jang jàng ji am xalé yo xamni buñu bu duñu rër parce que xeyna na dekkal ño leen mëna dimbalé pour ñu añ wala ñu rër parce que seen waju waajur lañ jàpp ci bir kasso bi jaay leen doolé toroxal leen xalé yooyu actuellement mun ñoo jang tout simplement parce que seen waju waajur lañ jàpp te amuñu am amuñu amuñu fenn fuñ ko joyé kon procureur de la république ñi nga wax retour de parquet na arrêté nga bayyi doomu jambri ñu delu seen kër nga bayyi wajuru jambri ñu delu seen kër parce que li ngay def ni jaay doole la képp ku la ko mën a defloo pour xoqatal nit ñi pour ñu leen par force da ngeen di nangu ñu jaay leen doole kooku bu ngeen yaakaaree ne mën ngeen a napp nit ñi ba jaay leen doole ba bu ëllëgee lu ngeen leen teg ñu tegoo ko loolu mën ta nekk da ngeen di jaarale terre bi seen kaw waaye duñ dellu ginnaaw kon waa Sébikotane yi ku leen gis xam ne comme seen xaalis sàccuñu ko rambaajuñu ko wurujuñu ko dañ koo liggéey takkale ba tabax seen i kër kon ku leen bëgg a jaay jaay doole dañ dem taxaw defante ko ak yow kon bu ngeen yaakaaree ne ngeen a jaay doole da ngeen nax seen bopp kon li ñu leen di demandé mooy ngeen bàyyi doomu jàmbur ñu dellu seen kër ngeen bàyyi waajur jàmbur ñu dellu seen kër ba noppi ngeen indemniser leen correctement li nga xam ne suuf si ku ci nekk li nga li nga jënde woon sa suuf actuellement bi la jaayee doole boo demee doo jëndaat parce que suuf yokk na kon ku ci nekk nañ évaluer suuf si évaluer li nga def ci kaw suuf si ñu jox la li nga mérité bu nopp na wutal leen ay site yoo xam ne jaaru na bu ko defee ku ci nekk nga dellu ca daa jëlaat sa njaboot parce que jëlee nit ki ca kër gi moom màggee yaroo fa lu ci ëpp seen i waajur juddoo fa ñoom ñu juddoo fa loolu rek teg teg nit coono weesuwu ko bu nopp nag nga ko doole kooku képp kuy sénégalais waroo koo nangu kon ñu ngi ñëw pour won leen ni ànd nañ ak ñoom ci xeex bi dinañ leen encadrer pour wan leen duñu wëk ci xéx parce que Macky Sall jay jay doole jaaré ko ci justice té ñi ngi wax né dañ leen libéré numu gëna gaawé a gaawee sinon lu gis rek dañ xamné lool ñun la jërëjëf ñu sant ñu ñoom assalamu alaykum mbolo bi ñu la wa civicatan impacté du terre deuxième phase ñu ngi ni tribunal ñëw pour xéxa suñu doom yi suñu papa yi suñu bàjjen fi tok yépp depuis samedi ba légui ñu ngi leen téye di ñu pamti pamte di ñu maaj loo sonal ñu bay bëgg a dee lundi ba léegi heure bu ñëwee retour parquet retour parquet dañu sonn ci retour parquet nañu bàyyi suñu njaboot ñu ñibbi sonn nañ dee nañ tàyyi nañ mën nañu jël suñu alal ba pare bëgguñu xoqatal duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. gouvernement gouvernement Sénégal nag ñu ngi leen di woo muy Macky Sall na bàyyi suñu njaboot sonn nañ bu ko deful lu ñu ci bëgg rek nañ ci dem. ñun maire yeex paayeex ñëpp génn nañ pour joxe suñu bakken parce que ñoom moom suñu alal arrestation yi mooy jël suñuy suuf ne duñ ñu ko fay bëgguñu fayee barem 2010 te jamono jooju ba léegi ku nekk xam nga ne fi mu ne tonu ciment yegg na quatre soixante quinze mille wala ay soixante treize mille tey jii kuñ ci fay ku ne rez-de-chaussée sax mënoo ko tabax di la fay ay dem sax dañuy waxaale sax mel ni da ngay dugg marché di jënd ay yabo yax yi yu mag. te loolu dañ ko dépassé ñun soxlawuñu teer ñoom ñoo ñu soxla woowuñu leen suñu dëkku ñoom ñoo ñooñu woo comme ko Sébikotane nee nañ burus la nañu bàyyi ak suñu burus ñun suñu burus bii si la ñu juddoo si la ñu yaroo si lañu ñu màggee si la ñu ñaan yàllaa dee suñu ngor nag lañu taxaw lii du gàcc ci ñun woo ñu ramasse ñun ñëpp ñu tëj ci kaso bi mais du tax ñu dellu ginnaaw te combat bi tey jii lay gën a taxaw ñuy waxaat suñu préfet département nañu may suñu jàmm génn suñu département bëggatuñ ko fa tey bëggatuñ ko suba suñu autorité dëkk ko Sébikotane aussi seetaan nañ ñu jàppale ñu biir jàppale wuñ ñu biti lu dul toog dañuy ëffal ak population bi naan ñun ñoo tax ñu téye fi xale yi nañ leen gën a téye hmm. tant bàyyi leen ñu ngi seen kaw bu ñu xëyee dinañ taal bu guddee dinañ taal bu ngoonee dinañ taal loolu moom ñu ngi seen kaw lu mu leen jaral benn jaral nañu ko téeméer hmm. mayuñu ñu ñu dañoo jënd suñuy titre foncier lañ yor ñii domaine lañ yor nee nañ nag titre foncier waxaguñu ay waxam il faut décret présidentiel décret présidentiel balaa laal suñuy suuf na dem signer décret ba war ñu fay ba pare mu door a ñëw laal suñuy suuf hmm. wala mu ñëw maase la ak suuf yi mu jël. voilà bon arrestation bi euh, dañ doon def sitting le samedi bon ba ñuy def sitting

bon ma jàpp ni jaw gendarme gendarme en tant que gendarme ñu lay wax homme de loi soo ñëwee loor nga laaj nit ki moo regroupé bi ngay def fii est-ce que da nga am autorisation su ne la déedéet nga ne ko quitter les lieux jóge fi su dee dafa bañ dafa résister nga gazé su dee dafa continuer di résister nga embarqué mais loolu lépp amul ñoom daal fa ñu fekk ñu taxaw dañ ñëw rek monté monté monté yéeg jàpp yóbbu comme ça ba ñu jëlee yóbbu ñu yóbbu ñu euh, ñii ñu yóbbu leen euh, pôle urbain bu gannaaw stade Ablaye Wade pôle urbain bi ñenn ñi yóbbu leen jam ñaajo tas ñu carrément te ñu ngi jàppee sëbi yóbbu la ba pôle urbain bon depuis samedi ñu nekk ci ba lundi matin si lañ leen indi fii bon lundi ñu def leen retour parquet tey aussi tamit ñu defaat leen retour parquet jusqu'à présent ñu ngi toog di xaar bon ba loolu amee dimanche booy yi tamit ku ñu jàpp sa papa ak sa yaay metti na la te jàppuñu ko ci yow taaloo la ko defoo dara bu ñu ñun dañuy jàpp ñu taal ñu jàpp ñu benn yoon ñu xam ne lii lañ def mais fekk ku taxaw nga jàpp ko yóbbu ah am na si koo xam ne Italie la jógee doomam demoon ci kii bi mu dem di ko jëli ñu jàpp ko ci yoon bi dugal ci oto am koo xam ne Maroc la jógee daan dégg suñu collectif bi ba mu ñëwee mu ne xaaral ma dem nemmeeku waa collectif ba mu e wàccee ñu jàpp ko yóbbu ah ñëpp ñu ngi si biir am na koo xam ne jigéen boo xam ne seex la bàyyi ay seex ñu jàpp yóbbu am ñaar ñu nekk fi ñoo xam ne dañoo feebar dañuy jël seen garab ñuy tension la ñu am affaire ñoom ñëpp a ngi si biir ñu daal mooy suñu problème nañu bàyyi ñii ñu ñibbi

tey euh, di di di nakarlu li nga xamni amna ci euh, impacté deuxième phase projet TER bi nga dañu dëkk dañoo dëkk euh wa deuxième phase euh, ñëpp xam ni mën nañ comprendre que première phase bi am ay erreur ça peut se comprendre mais l'État du Sénégal au lieu de rectifier pour la deuxième phase mais vraiment ñu dalgati sen ak ak seen yelle bu baax donc vraiment

ñu defeere leen fii au parquet donc ba ñëwee lundi bi ñu defeere leen au parquet bi ci guddi ñu defee ne dañuy dellu seen kër procureur bi daal di requérir def benn retour de parquet ba mu defee recours de parquet bi tamit seen njaboot ji nekk seen kër yi tamit vraiment affaire bi metti leen ñu jug tamit di manifester donc ñoom tamit ñu jàpp ci douze personnes ñu indi leen fii booleeg ñi nga xam ne tey jàppoon nañ leen bu bu njëkk muy trente sept personnes donc trente sept personnes boobu démb tamit ñu ñëwaat dafa ne dañ leen di bàyyi. ñu defalaat leen tay retour de parquet ba instant bi may wax ak yow ni ñu ngi ci euh, kasso bi donc té laaju ñu dara lu sen ak ak sen yelleef parce que wax deug yalla état du Sénégal bu démé ba am un projet bu nga xamni il a injecté beaucoup de milliards defe na ni euh, li gënul moy ñi nga xamni daf leen fekk ci tracé bi ñu nangu cédé sen kër parce que opposé wuñu ci projet bi en tant que tel mais ñu nangu nangu cédé sen kër ñooñu war nañ leen mëna fay fay bu tax ñuy wax mais duñ leen dem di leen jaay doole di salfaañe sen ak ak sen donc motax ñu interpeller aux autorités étatiques à tous les citoyens du Sénégal nañu allons ci affaire bi ñu régler ko le plus rapidement possible ñu libérer les détenus voilà